la ñu xaw a jëkk jullit yi mu gis yéeféer yi jege yonent bi dafa daldi sànni mbuusu ndox ma rek fukki jaasi di défendre yonent bi moo góor ñi moo góor ñi ba ñu dóor ko fukki jaasi ak ñett mu door a daanu yonent bi xare bi jeexee mu ñu du dem mukk te gisul ndaw si waaw ni jigéen bokk ci yëf yi la bokk nee na kon nag jigéen ñooñu nga xam ni ñoo jiitu ci lislaam bi daan ànd ak góor ñi di def la ñuy def ci lu baax ak jabari yonent bi jabaram yu tedd yi nga xam ni ñoom ñëpp ay modèle lañu woon ay exemple la woon nee na ñooñu la jigéen ñi war a roy nee na na saxaaba yu góor amee woon noonu la saxaaba yu jigéen amee woon nekk ay ndey nekk ay sœur nekk ay doom nekk ay roytuwaay waaye bu fekkee jigéen itteem yépp mi ngi ci xeesal yaramam ak xonqal weem ak xonqal tuyam ndeysaan xonqal su tuñ de moom dañoo ñuul ñun boo xonqalee nag dangay xaw a niroog li kenn xamul waaw di xeesal xeesal yaram yi te du tax nga mel ne tubaab yi te nga ko bàyyi mu ñuul rek dafa rafet suñu ñuulaay dafa rafet lu ñuy roy ku xees yàlla moo bind ku diggu doomu moo bind ku xonq bind ku rouge ku jaune bind ku weex bind ku ñuul yooyu yëpp bëgg ñu xam ni mën na lu nekk rek waaw lu tax yàlla bind la mën a fi nam la bind kontaanoo ci nga dem di ko soppi di wut ay pamaat ak la ilaha illallah lu ne nga jaxase ko ca lu ne lu ne saabu wala fab pamaat beeg dóom ak xemeeg kaata togg ak yëpp nga jaxase di diw ci yaram mi nag di naax nag pour xonq loolu amul njariñ bàyyi sa yaram mu ñuul rek rafet na ñuulaay bi rafet na lay ne san waaye mënoo ci dara xam naa doomu sëriñ yi koy def nag ñoom lay ndeysaan xonqal nag defe ni yàcc nekk ak moom du tee tuñ mi ñuul lu mu xonq xonq tuñ mi day ñuul te boo bàyyee ñetti fan ñuulaat te ñuulaat ba day gën a ñaaw lay ndeysaan waaye nag baax na ndax xëy na am na ñu ko bëgg lay ndeysaan nee na doy na leen exemple yéen jigéen ñi sayidatuna aïcha bintu abi bakar saddiq umul muminin moom mi nga xam ni dafa siiwe woon ci mokkal xadis bi ñu ne kenn ku nekk na nga wax li nga mës a dégg ci yonent bi ci xadis moom nettali na ñaari junne xadis ak ñaari téeméer ak fukk deux mille deux cent dix xadis la wax ne loolu laa dégg ci yonent bi xam nga boobu jigéen dafa nattak nee na jigéen la waaye xam itam dafa déggoon fiq nekk jigéen joo xam ni dafa déggoon histoire dafa man histoire man taarix nee na jigéen la woon joo xam itam dafa mokkal lu bari ci ay way ashaar nee na moo tax yonent bi wax ci àqam di wax góor ñi naan xudu nisfa diinikum an hadihi al xumayra yonent bi dafa daan wax góor ñi ay njànqusu xees yi kat lu leen réer ci seen diine na ngeen ko ko laaj xam na ko moo tax Cheikh El Hadj Malick di ko melal moom sayyidatuna Aïcha naan faqihatun adda wardin qad rawat xabaran min baadi alfay xadisin wa huwa lam tasil
وارد قد روات خبرا من بعد ألفي حديث ويلم تسم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما ورقي تجن يمن وما تزوج بكرا غيرها ولذا كانت أحابة بلا شك ولا تغيم على النبي وعليه أمين سلام ربنا دائما مبتغنا يمن فقيهة عاد ورد قد روت خبرا من بعد ألفين حديث ويلم تسم
baarak allah fi dalik ay Maodo ay moraw gaañi waaye fa mu jànge gaañi jànge wuñ fa de damay wax ni miimiye man ñaar laa gën a yéeme Maodo moo di miimiye ak nihayatul amaani fi nazmi xizbil yamani sayfiyu bi mu way ak miim yi ci laa ko yéeme moo raw ñi fi nekk ñëpp kenn seetlu ko ci waaw miim ya rek doy doy na ko doy na ko cëru yàlla miim ya rek doy na ko cëru yàlla moom dong nga ko mas a def du nit ku ñuul du nit ku xaw mun ko ana moo tax mu ni faqihatun adda wardi wardi mooy ñaar téeméer fukk qad rawat xabara min baadi alfay xadiis du nit sax nee na sayyidatuna Aïcha mooy kooku ci ñu daan jàppale yonent bi ci mission la bokk nee na naka noonu wujjam ba sayyidatuna Xafsa bi nga xam ne moom te Sidna Omar a ko jur nee na moom itam dafa mokkaloon alquran nee na ba ñu boolee alquran itam moo ko ñoŋal denc ko ba sayduna sayduna Usmaan man caa jot ba man ko boolewaat def ko mu di kaamil bii nuy jàng tey nee na tekkat boole gi ñu boole alquran moo symbolisé booloo gi ñu booloo ci pas-pas ak sharia te du dañ di ñu boole ila an yarisa allahu al arda wa man alayha nee na ba tey am na jigéen ñu bari ci jigéen ñu tedd ñi jigéen ñi jullit yi ñu amoon taxawaay yu tedd nga taarixul islam enregistré ko moo xam ci wàllu xam-xam la moo xam ci wàllu yar la moo xam ci wàllu jëf la moo xam ci wàllu jaamu yàlla la rabiatul adawi jigéen la woon moo lay wax umul xayri Seydi Haj Maay daf ko sopp ba tudde ko doom Sëñ Babacar Si sopp ko ba tudde ko doom umul xayri ndey yiw lañ ko tudde woon jigéen la woon joo xam ni daana julli junni rakk guddi gu jot junni rakk ku ko julliloo woon seeni sàll day sàllaahu mu saaga la maam téeméer rek junni rakk ci jigéen guddi gu jot mu julli ko ci su ko jullee ba noppi ni yàlla bëgguma ci àjjana ragaluma ci safara muhammad rek laa bëgg ëllëg bu yonent yëpp dajaloo mu am lu mu tiitaroo ci seen biir te moo di amoon naa ci sama xeet jigéen ju julli junni rakk te yéen amu leen ko wax ngisaan bi ko buur bi ñu ko nee soxna si day jaamukatu yàlla la waaye waaye fa mu dëkk dafa màggat tabax bu xar la dëkk buur bi ñëw ni ko daal dama la wutal kër gu rafet bëgg nga dëkk ci mu ne ko waaw su ma dëkkee ci kër gi ndax duma ci génn dem ci bàmmeel mu ne ko ah kañ mu ne ko bàmmeel a gën a ñaaw kon bàyyi ma fii rek nee na wala jigéen ji mel na sayyidatuna Nafisa ca Égypte ca Misra moo imaamu Shafii ñoo doon dund lu mas a jaaxal imaamu Shafii dafa naan dem leen ca sayyidatuna Nafisa ni ko nanga mooy suma jaaxle bu feebaree day wut taas def ca ndox ñu joxal soxna si na ma ñaanal te bu ko ñaanalee rek bu ko naanee wér ba bés imaamu Shaafi ay feebar radiallahu anhu yónni benn taalibeem ñu ko demal ci soxna Nafisa ñu ko dema feebar dama ñaanal ba mu demee mu ne ko ah dafa feebar mu ne ko waaw mu ne ko soo demee nga ni ko yal na ko yàlla woon kanamam gu leer ga taalibe bi ñëw ñu ko dem naa ba ñëw nee na yal na la yàlla woon kanamam gu leer ga imaamu Shafii ni kon de sama feebar bi ci lay dee waaw comme loolu rek la wax yal na ma yàlla woon kanamam gu leer ga sama feebar bi ci lay dee waaye su ma dee da ngeen ma yóbbu ci moom mu jullee ma ak ni imaamu Shafii toll nga xam ni ñeenti école yi mag yi am ci lislaam benn bi moo ko créé ba mu faatoo ñu yenu ko yóbbu ni ko jigéen ji ni ko sëriñ bi def ni woon su dee ñu indi ko ci yow nga jullee ko mu ne waaw tegal leen ma ko foofu ñu teg ko fa mu dugg ci néeg bi ba mu yàgg mu génn ni jël leen ko ngeen dem jox ilimaan mu julleel ma ko waaye ngeen wax ko ni ko nañu wax ca kaw ndax ma mën a ànd ci jullee bi ñu demee jox ko ilimaan ilimaan jullee ko mu roy mu àggalee rek haatif ba wax ca kaw asamaan ni yàlla nee na jégal ne imaamu Shafii ak képp ku àndoon ci jullee bi ndax li sayyidatuna Nafisa àndi ci julleem jigéen kat moom rey ci yàlla lañ ko gën a séenu nag jigéen lañu gën a séenti ci moom nag lu baax ak lu rafet ak muñ ak topp sa jëkkër ak suturaal koog muñal ko ay benke ñenkeem ak waaye jigéen joo xam yàkkamtiwul lu dul nga ñu ko coy ba mu ne la gel ñetti yoon jigéen day muñ nag góor a wax yëngal tuuti nag góor moom kër il faut mu xumbal xumbal boobu du dara bu ngeen wéetee lu la neex nga def ko bu la neexee xoj ko bu la neexee feccloo ko sax waaye buy xumbal nag ci biti nga suturaal ko rek nga pat ba mu xumbal xumbal bu ngeen duggee si ne nag nga ne ko eh Samba aha nga defe day xaddami ko rek jàpp njàmburam ndeysaan amoon naa benn nijaay mu ni xaddami ko góor googu góor di xaddami ko suba teel ma ne ko mu ni ma jooy la mu ni ma yu metti yi ñu koy def ci néeg bu guddi mu xëy nag toog baas mu ne yaay ndeysaan noo di ndeysaan yàlla bu am wujj bu ñu am wujj nag bu ci am wujj bu bees de moom waaw du mu muñ muñ rek daal di génn tànk bukki nag su nga defee jigéen jigéen ñu jëkk ña dañ daan wut yiw di wut doom ju baax ndax doom ju baax jigéen la koy liggéey te du ko liggéey ci xuloo ak rëy gémmiñ ñu tooñ ko mu muñ moo koy may doom ju baax ñu tooñ la nga muñ sa jëkkër tooñ li ci biir néeg bi nga muñ waxuñu nga liggéey di togg ak ay yekk ko fóot loolu du liggéey liggéey mooy ñu di la def lu metti ci biir néeg ba nga di ko muñ boo ko defee rek yàlla jox la doom ju baax waaye bu la si jëkkër ne coy nga ni ko gel bu la nee bul dem nga ni danaa dem noppi nga ni noppiwuma noppiwuma yaay kan ma ne may maxtaar ay ndeysaan yaay kan xam nga ni yaay kan nga wax ko sa jëkkër moom foofu la manqué góor mën a yem yaay kan may muxtaar ko dafay jigéen ñu baax ñi tabarakallahu fii ci Sénégal am na jigéen ñoo xam ni doy nañu roytuwaay waaw mel na Adam Aïcha Aïcha Umarul Fuuti radiallahu anhu fa mu jaar ak la mu def ba yàlla jox ko cheikh cheikh umaru fuuti ko deme na maam fa wadd wele fa mu jaar ba yàlla jox ko cheikh alxaaji malik mel na maam jaara buso fa mu jaar ba yàlla jox ko cheikh ahmadu bamba waaw ñooñu koy ñoo jotoon ñoo jara rey waaye jigéen ji nga xam ni moom xulóog xeex rek xuloo xeex ëmat li daan wax man jigéen ju bon ma ne ko waaw benn dox la woon bu fi nekk ma jigéen ju bon ma ne ko waaw man ma day gàttu ñuul ñaaw suuña di barib ni mat haay gaaf ma ne ko jooju jigéen da baaxul nag jigéen bi gàtt ñuul ñaaw suuña di bari ne mat xay gaaf wallaay ndeysaan loolu la daan wax de ma ne ko waaw mu ne ma buy mooñ ne buy mooñ càmmoñ baa ca ndab la ndeyjoor baa ngay seppi teeñ ca bopp ba di ko toj ca boolu ndab la ma ne ko su bokkul nee na ba tax na ñu ngi muñ nee na xadara bii ñu bokk ak réew mii ñu bokk ñu ngi négandiku vidde yi am suñu jigéen ñi mën ko combler ci moo xam yar suñu doom yi la wala sàmm leen wala xamal leen wala nekk ay jàngalekat ca biir école yi wala ca biir institution éducative yi nee na loolu daal ñu ngi koy muñandiku ci jigéeni xadara bi ñuy yar di jàngale xam li leen war ci seen dund xam li leen war ci seen diine xam lu ko nee na ñu ngi muñandiku ci ñoom ñu taxaw taxawaayu dimbale nga dimbale sa jëkkër dimbale sa société nga ñeewante ki nga xam ni dafa amatul jëkkër di jatuur ak ki nga xam ni dafa amatul yaay walla bàyyi di njirim nee na ñu ngi négandiku ci jigéen ñi lislaam bi ñu taxawal ay organisation yu deme na ay croissant rouge wala yu deme noonu nga xam ni dafay lamb ay taxawaay ay itte yoo xam ni danañ ko man di jooxe nee na ñu ngi négandiku ci jigéeni lislaam bi ak jigéeni tariqa bi ñu taxawal ay commission yoo xam ni dana tëral ay yoon yoo xam ni jigéen ña danañ ca mën a dëgg di jàng nañuy toppatoo seen diine d'abord seeni laab ba mën a xam jigéen laabam yépp nu mu war a mel ci njàpp ak cangaay ak tiim ak setlu nga xam la cay wàllu jigéen soo ca jógee nga xam jigéen naka lay yare doom ak naka lay ittewoo njaboot soo ca jógee nga xam jigéen naka lay toppatoo néegu sëyam ba néeg ba du jagam du tilim du bari bagage darab ba du tilim ndaala du am nëxit néeg ba du am lënd nee na yooyu yëpp nee na ay yoon yoo xam ni jigéen dana ca mën a dëgg xam nu ñuy ñawe xam nu ñuy fóote xam nu ñuy togge gis naa barki dem bu ko sol benn xaftaan wallaay ndeysaan xaftaan ba daal paase ba sant na ndaw lool ma woo ko ci ruq ma ne ko ku passé sa xaftaan bi mun ma sama jabar ma ne ko sa jabar du nit yow doo nit ma ne ko ndax passé bu bonim jigéen ju kon attan passé waaye passé bu bone ni góor gu ko attan sol ma ne ko sa jabar du kenn doo kenn passé boo xam ne def naan dañ koo dank rek boobu loolu góor sax rus na ko passé jigéen kay day jàng nag passé bu tàllee tàlli passé bu tàlli lu bon bon jigéen géen mën na ko passé moom bés teg bés rek la ku ne war na koo mën teg bés mu tàlli waaye ñugur ñugur póot mu bon so mbubbu jëkkër bu xotti ko doo ko ñaw noonu nga koy fóotewaale ak xotti ku ba bu buton bi daggee doo ko tap ah yooyu xat mooy mooy mooy yaru jigéen nag ci néeg waaw mën na tapp buton mën na ñëw xottiku waaw mën na waaw waaye yooyu yëpp sa yoon nekku ci rek am na jigéen ñoo xam ne ñoom seen yoon nekku ci tëdd nelaw rek xandoor rek ene su ko defee nag kon yooyu ñu lim xadara baa ngi nekk ay jigéenam am itte ba yegg foofu ngeen am ay centre yu ngeen di jànge ñaw am ci ay machine tant ci niveau daayira yi war ngeen ko mën di fa jàng togg xam togg gu neex togg moom puloox sax mën nañ ko togg mu neex ak ñebbe man dem naa Mali bu yàggul hôtel bi ma daloon la ma fa lekk yépp Mali ko togg gajaanga ñebbe gerte yomb la ñu jël di ko togg ay plat yu neex a neex ci hôtel bi ñu di ko lekk gajaanga gi moom leen doon def hors d'œuvre ak ñebbe ak ak mboq waaw na togg gi neex rek waxuñu nga dem wuti yàpp ki jën ak yi yooyu wóorul sax waaye bu ñu la joxee gerte togg laaxu caaxaan bu neex ah la cere xaa ko cere mbuum ok la cere xaa ko tukulóor la cere mbuum bu neex da nga gis cere mbuum boo xam ne walaay mën nga ko te tegal Mitterrand su ko defee nag kon seen gannaaw gàmm gu tedd gi ak seen bésu ëllëg yi nuy seenu yal na yegg seeg jàmm xadara baa ngi muñ ci yéen yeneen ittee yeneen i taxawaay yu dul coow ak wax rek coow ak wax nee na xadara baa ngi leen di fuuglu di leen observer ndax ngeen mën a gën a jëm kanam ndax ngeen gën a mën a taxaw nee na ngeen dox ànd ak aaya ba wala hunna mislu ladi alayhinna bilmaarufi wa lirrijali alayhinna darajatun wallahu azizun hakim وفقنا الله وإياكن وكلل أعمالكن بالنجاح نلين يالا دفل توفيق seen jëf yëpp yal na ko yàlla couronné ak succès ah li ngeen di def yëpp yal na ko yàlla nangu ci xadara bi am na jigéen ñu Sëriñ Babacar Si daan naw di wax naan wallaay su jox jigéen lijaasa daganoon ci tariqa bi jigéen ju mel na wal ci ndóoy danaa ko jox lijaasa ca puut jigéen ju mel na soxna rahmatullahi jóob danaa ko jox lijaasa jigéen ju mel na soxna njoora mbeng danaa ko jox lijaasa jigéen ji mel na soxna wulay si la danaa ko jox lijaas waaw ak yeneen di jigéen yu baax yu amoon itte lool ci tariqa bi am itte lool ci service su kër Cheikh Al Hadji Malick di ca def ay njàmbaar di ko wone Sëriñ Babacar Si ràññee woon leen di wax ni ñii de bu jox jigéen lijaasa daganoon ci tariqa bi ma jox leen ko waaw ndax rek seen taxawaay ak seen itte ba tey nag ñoo ñaa ngi am ñu leen remplacer mooy yéen ñii fi toog tabaarakallaahu moom bu neexoon Babacar sax mu jox jigéen ñooñu lijaasa sañ na ko moom ci tariqa bi martabaam yàgg na ci waaye su ko defoon da ngay gis ku ca sa mart ba yeggul nga di ko def te doo ko mën a layal lu dul toppandoo rek mooy la Cheikh Alhaaji Malick waxoon toog ba mu yàgg mu ne buntu ijtihaad tëjoon nañ ko waaye danaa ko tijji ndax atte yi kat ña ko doon tëral dañu bàyyi woon seeni peuple xel bàyyi ko seen jamono te bokkatuñu ak ñoom jamono bokkatuñu ak ñoom ay peuple kon nag danaa ubbi buntu ijtihaad sëriñ Alioune Gueye ni ko ijtihaad ñeent a koy def te kenn nga mu ne ko Haaji Touré maa ko jàngal te wóolu naa xam-xamam danaa ko yóbbaloo man danaa nekk ñaar